leen jaajëfalaat bu baax ah, a ñuy toog ci li nga xam te ne mooy levée de l'arène ci li leen di am contentement jano ak yéen chaque suba ngir indi leen li gën a fës ci bopp xibaaru làmb laataa may ñëw loolu damay nuyu ñu ma toogal Mbaye Babacar. jërëjëf Ndeye Mbacke fii mooy Leewtoo TV di euh, euh, site internet bi nga xamante ne bii lépp loo bëgg ci wàllu làmb moom kese moo la koy andil nuyu nañ ñëpp jaajëfal ñëpp wante maa ngi nuyu wàccu. asalaamaaleykum nuyu naa la. fay naa la Ndeye Mbacke di fay Babacar di amaat mbégte jàkkaarloog Leewtoo internetu Leewtoo TV pour indi leen li gën a fës ci yenn kaay yi. comme ni ngeen ko gisee nag suñu revue de l'arène dañ ci ànd ak nga xam te ne mooy huile j'adore nee leen duurin bi mooy duurin bi gën ci duurin yi duurin bi mën ci duurin yi yaakaar naa ne képp ku jigéen boo duggee ak moom ci biir waañ bi rek boo génnee ñëpp dinañ kontaan bay Babacar. jërëjëf ni ko suñu mbokk internet yi xamee. Huile eh, j'adore moo ñuy dungee ci revue de presse nga xamante ne bii moom lañ leen di amal fii chaque jour ci Leewtoo TV huile euh, Zador nag li mu mën bëri na démb jox naa leen ceeb bu xonq ak ceeb bu weex jox naa leen yaasa mais tey bi ma leen di jox mooy tufe ginaar huile Zador moo ci mën. vendredi 26 février 2021 journal suñu làmb ñëw ci xëtam mu njëkk Abdou Bakhoum monte le créneau Modou Lo Ama Baldé pour se tenir en Gambie. Abdou Bakhoum moom mi lee nga xamante ne bii moom mooy ménager Ama Baldé di sëllu bu ndaw yëkkati na kàddoom ci journal bi nee Euh, organisation huis clos bi nga xamante ne bi ñu ngi koy la ñu ngi koy wax fii ci Sénégal nee na diggante Ama Baldé ak Modou mën nañ koo amal fële ca Gambia wante ñëw na wax ci mbërëm nee na Ama Baldé combat bi su fekkonte ne bi tey tey jii la pare na ngir jàkkaarloo ak Modou wax nga dëgg mbay Babacar ni nga ko waxee noonu la euh, Abdou Bakhoum euh, xëy ne wax ci yëkkati ay kàddu ci journal suñu làmb Abdou Bakhoum nag moom mooy manager Ama Baldé lu mu xamle mooy combat Modou Lo ak Ama Baldé bi mën na am sax Gambie lu tax mu wax loolu mooy que ne Tyson ak fa Fadam mos na am Gàmbi te nee na war nañ fa demaat tëggaat fa beneen combat te Modou Lo ak Ama bi affiche bu baax la boo xam ne ni mën na permettre ñu tëgg ko Gàmbi wax na également ci forme euh, plein bi di Ama Baldé nee na Ama pare na pour jàkkaarloog Modou Lo nee na dig ni ko ndaay su ko neexee sax mu jël combat bi tëggee ko akapes bu terrain akapes bu parcelle <laughs> wala sax ba biir kër Modou Lo ñu tëggee ko buntu kër Modou Lo waay nee na pare na Ama Baldé pare na pour jàkkaarloog Modou fu ñu ko mën a tëgg moom nee na pare na loolu neex naa dégg. ba léegi Eumeu Sène Balla Gaye 2 Ama Baldé Bombardier ces lutteurs qui ont réussi la dóor fayu. Euh, jërëjëf Ndeye Mbacke ñeenti mbër yooyu nga tudd muy Eumeu Sène Balla Gaye 2 Bombardier ak Ama Baldé nee na ñeenti mbër ñii suñu borom da leen a may ñu mën ku leen dóor ku nekk ñu fayu maanaam ku leen dóor da leen abal yet wi ñu fayu ndax boo seetee ñi leen daan ñëpp bi ñu bëriwaatee ñoom ñii dañoo fayu. dëgg la Mbaye Babacar Eumeu Sène Balla Gaye 2 Ama Baldé et Bombardier ces lutteurs qui ont réussi le dóor fayu noonu la ko journal suñu lamb waxee nee na Balla Gaye ginnaaw bi ko Gris Bordeaux daanee le 13 juin 2004 Balla Gaye dafa fayu le 6 mars 2011 euh, Eumeu Sène ginnaaw bi ko Gris Bordeaux daanee le 13 juin 2004 Eumeu Sène dafa fayu le 6 mars 2011 Balla Gaye ginnaaw bi ko Issa Pouye daanee le mars dafa fayu le 29 juillet 2007 Ama Baldé également bi ko guy gi daanee le 27 mai 2012 dafa fayu le 24 janvier 2016 Bombardier également euh, ba Baboy moo ko daane à Bercy le 6 avril 2006 mu fayu le 8 juin 2013 nee nañ ñii ñeenti ñii daal ku leen mës a dóor ku nekk fayu nan kon ñoom ñii dañoo mën furle. amaan na euh, Balla Gaye amaan na occasion également fayuwaat ci Bombardier ndax Bombardier daane woon na ko te war nañu dajawaat. donc des na beneen fayu. des na beneen fayu. loolu dina leer sa licence en poche Pape Thialis Faye le boss de Leewtoo production prêt à officialiser Tapha Tine Boy Niang moom mi lay nga xamante ne bii moom moo taxawal tafaatin ak ak Boy Niang 2 càppaacolu ji nekk fële ci Pikine di Pape Thialis Faye euh, licence jënd na ko ba pare ba tax na loolay waral ma nga ca wàccaayu combat boobule ba tax na. ñu ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñaan amateur yëpp ñu xaar. dëgg la Mbaye Babacar Pape Thialis Faye moom mooy patron Leewtoo moom nag euh, Leewtoo production moom nee na euh, wala Max Mbergane bu nekk ci staffu Leewtoo production moo xam ne moo génne information boobu ci suñu làmb nee na nag Leewtoo production dem na jënd seen licence te pare na pour tëgg combat bi di euh, dox war a dox ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang 2. soo ko seen Serigne Ndiaye 2 le promoteur Habib retient la date du juillet. Habib Farhat. moom mi lee nga xamante ne bii promoteur la nee na moom pare na ngir taxawal ko ngir tëgg combat bii di bii dox ci diggante Sokocim ak Serigne Ndiaye 2 bu Fass ci euh, anamu wiikuloo li li ko li tax mu wax loolu nag nee na xale yi avance bi dafa yàgg ci seen loxo te bëgg na leen a libéré mu nekk ci leneen. dëgg la Mbaye Babacar Habib faraat ñu xam ko mu bëgg làmb lool nekk bokk bokk ci benn euh, entreprise boo xam ne nii day dox ci wàllum alimentation moom nag nee retenir na datu mois de juillet pour tëgg affiche bi di war a dox ci diggante Serigne Ndiaye de ak Sokisim euh, war également beneen euh, combat bi war a dox ci Nandi Fall ak Dame Sène nee na pourquoi mu bëgg koo tëgg ci huis clos ci mois de juillet nee na avance bi dafa yàgg ci loxoy mbër yi te jot na nag ñu libeere leen. wax na également ci huis clos bi nee na tëgg huis clos euh, risque la mais nag pandémie moo fi nekk te amul beneen solution donc il est obligé mu def combat yi à huis clos. te lu mënul am. mënul ñàkk fois mu am pandémie moo fi nekk di dogal euh, pour que ñu mën a def euh, combat yi il faut que ñu def ko ci à huis clos. dëgg la Assane. lutte simple lañ jëm les modalités d'organisation le test Covid-19 des lutteurs abandonnés. Adama Bopp moo wax loolu moom mi la nga xamante ne bii moom mooy yor kàddu CNG. nee na li nga xamante ne bii moom mooy euh, test Covid 19 yi ñu doon wax ci mbë mbër yi war a bëre bëre simple ci huis clos bi ñu doon wax loolu bàyyi nañ ko. dëgg la Mbaye Babacar démb waa CNG dañ doon def benn réunion technique man ci génnee nag li ñu xamle mooy test Covid yu nu bëggoon a imposer mbëri avant ñuy bëree dañ ko bàyyi wax nañ fa jëwoon jël nañ fa également yeneen dogal nee na lutte simple bu amee désormais 64 lutteurs rek lañ autorisé ñu ñu ko ñu ñu compétir ci gala bi wax nañ également lutteur bu nekk. benn accompagnant lañ ko permettre mu indi lutte euh, batteurs yi 10 la ñuy doon chanteurs yi 7 yi 20. bu dee arène nationale bu dee ci yeneen stade yi dix euh, journalistes également bu dee arène nationale vingt journalistes lan lan permettre bu dee ci yeneen stade yi dix journalistes rek ñoo am euh, droit accéder ci terrain yi. kon leer na mi ngi noonu. loolu métti na xar kanamu làmb dina changé mais wax naa ko sànq xam nga boo amul la nga bëgg la fa sës rek moo fay le CNG est prêt à organiser des grades les formules d'arrêt arrêtées sont soumises ce CNG moom mi la nga xamante ne bii ñoom ñoo ŋànk làmb fii ci Sénégal ñoom incha allah daañu amal daje ci altine bi ngir waxtaanee eh, làmb yi nga xamante ne bii moom la ñu war a amal ñu waxtaan ci ban anam lañ koy lañ koy amalee askan. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi CNG proposé wala jël dogal ne dina def les mercredis de l'arène euh, maanaam chaque mercredi bu nekk wala chaque deux mercredis mu tëgg benn combat démb si seen réunion bi ñu doon def ginnaaw bi ñu ci génnee ci seen réunion technique boobu CNG bi jël nañ dogal ne dinañ tëgg ay combat euh, lutte waaye nag loolu. dañ ko wax waxa ni waxe waxa nigum nii rek mais lépp dinañ ko finaliser seen réunion bi di ñuy def lundi prochain incha allah. incha allah. CRG Thiès dañ jëm l'installation du bureau ce vendredi incha allah. CRG Thiès ñu war a samp li nga xamante ne bii moom mooy bureau bu bees bi incha allah bu ci yàlla àndee tey ci àjjuma ji asal dëgg la Mbaye Babacar CRG bu Thiès comme niñ ko xamee bu Diallo lan teg ci kaw bopp CRG boobu nag lu ñu journal suñu lam wax mooy que tey lan leen di installé tey tey ci tey ci vendredi bi lan leen di installé à partir de 16h installation boobu nag ci gouvernance bu cees lay am te après installation boobu suñu mu nee ne Abib Diallo dina fa dévoiler feuille de route am maanaam dina wax yoon bi nga xamante ne bii moom la nar jël ngir jëmale làmb Thiès. exactement dina waxoon na fi ay objectif am maintenant li des moom mooy mu tegal gouverneur bi feuille de pour que mu mën a doxal làmb ji sa Thiès ni mu waree. dëgg la Assane. Euh, te jam Jamaïcain lañ jëm promoteur bi nga xam ne mooy Ndiaba jalee Sénégal ak Gambie reçu par la mairesse de Banjul. promoteur bi nga xam ne mooy mooy mooy baagante diggante Sénégal ak Gambie kooku di jam. ñu naan ko jama euh, jamaïcain borom jam production mu mel ni maire bu Banjul nag daf koo dalal démb Assane mhm. bi nga ko dalalee ba noppi lan moo tukkee ci waxtaan bi dëgg la Mbaye Babacar jamaïcain ñu xam ko ci mu nekk benn promoteur nekk ndaw nekk ci làmb ji di yëngu démb nekk wala mercredi bi passé mairesse bu Banjul daf ko dalal mairesse bu Banjul mi ngi tudd Rocky Malick Ngom moom nag euh, waxtaan nan ci ay euh, ambition jamaïcain ak également combat bi mu war a tëgg la 7 mars puisque dafa dafa jàppoon le 8 mars pour tëgg fa combat France France ak Leket Baara mais euh, benn décision le président Adama Barrow jël ne le 8 à partir le 8 mars mars manifestation yëpp dañ koy arrêté looloo tax mu rapproché datam boobu le 7 mars démb nag waxtaan na ci ak maire Banjul bi wax na également ay ambition maire bi. mu nga noonu te journal record lañ jëm. lutte organisation des combats à huis clos Tapha Tine Boy Niang 2 Reug Reug Gouye en question. mu mel ni euh, organisation huis clos bi ñuy wax ci làmb ji ñaari combat yi kenn xamagul date yi. dëgg la Tapha ak Boy Niang Reug Reug ak Gouye gi ba léegi amateurs yi ñu ngi laaj ñaar ñeenti mbër yi kañ la ñu war a sëgg bëri. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw ba Balla Gaye Bombardier amee date. yeneen combat yi tamit am date euh, combat yi war a dox ci Tafatine ak Boy Niang de rëg-rëg guy gi moom amagul date looloo tax journal record euh, dem introsé ñu ko tëgg wax na teeg Pape Thialis Faye Pape nee ne le huis clos partiel moom la ñuy sàkku ci Matar Ba ndax huis clos total bi day métti ñoom ci ñoom parce que du leen permettre duñ am possibilité jaay jënd jaay billet te donc daal ñu ngi ñaan Matar Ba mu defal leen huis clos partiel ñu permettre au moins ay 3000 wala 5000 personnes ñu euh, mën seetaan lamb ji wax na ci également Mao Cissé entreprise am moom moo nekk ci bopp guy gi ak euh, rëg-rëg moom li wax moo ne nee na ñoom jëlagun benn décision ñu ngi toog di xaar di xool di si ci kanam bu ñu demee lu leen euh, seen bët may rek ñu def ko wala seen xel lu mu leen may ñu def ko. olof Ndiaye nee na mag la dal xelam moo koy may yaram. Mhm. <laughs> te loolu lañuy ñuy jeexalee nag lutte euh, dernière phase de fusion entre deux ces deux écuries Ndakaaru et Fass sur la table du préfet. ñaari écuries yi nga xamante ne bii mooy écurie Fass ak écurie Ndakaaru ku nekk xam na ne jamono yi yëpp ñu ngi woon ci ay waxtaan di xool naka la ñuy def ngir boole ñaari écuries yi muy benn léegi nag daanaka waxtaan nan ba déggoo kayit yëpp ma nga ca taabalu préfet bu Ndakaar dëgg la Mbaye Babacar Kati Diop moom moo ko xamle ci biir journalu record euh, Kati Diop moom nag moom membre fondateur la woon wala moom moo doon euh, moom moo doon euh, kii fonde écurie Ndakaaru mu ñëw nag pour fusionner ak Fass nee na nag papier yëpp pare na depuis deux semaines ñu ngi ko nekk mi ngi nekk ci taabalu préfet bu Dakar moom rek moo ci des bu signé rek papier yi mat ñoom ñu commencé seen liggéey. ma nga noonu loolu moo nekkoon li gën a fës Mbaye Babacar looy tàggatoo bon li jaajëfal ñëpp di sant ñëpp wante tey di jaajëfal. sama xarit bëgg fàllu maara ñu naan ko ndeene tey moo ma génnee fii ma génn wante ki ñaw euh, yére bi kooku mooy Modou Fall waa centre de couture soppey Serigne Mor Thiané Sarr nekk fële ca Marcel Dumbe Diop série série joojo nga xamante ne bii macha allah lu mu ñawul baaxul kontaan naa ci yow doom ndey maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax wante di leen wax ne suñu diwlin bii di huile J'adore moo ñuy gunge chaque jour. ci revue de l'arène bu leen ko fàttee yéen jigéen ñi day leen ko jëfandikoo ndax moo gën ci diwli ñi Assane Waalo les Bakke di la fay di fay di remercier eh, Yacine Fall Fama Babacar eh, comme toujours di remercier waa di leen eh, jox dig daje ba beneen yoon di leen jaajëfalaat bu baax yéen suñuy internet di ñuy suivre ci nga xam te ni mooy revue de l'arène leen jaajëfewaat bu baax a baax a baax am cant gërëm ñeel la leen gis nañ ni ngeen ñu toppee gis nañ commentaire yi et tout duruñ Jador nag muy noonu xam naa dañuy gërëm lu kak suñu yaandee la borom ndékk yu neex yi ci duruñ bi lay laal defal ñu ndékk yu neex a neex Mansour bëgg naa la Ousmane faama ayda Matu Yacine <laughs> yéen ñëpp bëgg naa leen jaajëf ba suba incha allah